en fait yaa ngi ci commune sa wax département Nioro bok ci région Kaolack mu nek dañ ko cosaan dëkk bu ma dëkk bu yag bo xamne ci ay ci ay nat ay téméré téméré at waaye buñ ko jëlé ci way commune bi mu nek ñaar fukki dëkk ak ñet ak ay amo suñu amo nak wala ñu ñaar fukki dëkk ak ñet dina tuuti ci lim waaye dëkk yi dëkk yu mag lañ ndax population bi tollu ci fanweeri junne dama dama yu tek fanweeri junne ak ben yu tek <clears throat> lolu bokoy wax ci ci commune da ngay gis ne kon euh, macha ma dëkk yi dëkk yu mag lañ nit ñi nit ñu bari lañ dekk bi mu ngi nekk ci ginaaw Medina wax digënté Nganda ak Medina wax nekk ci juste ci frontière bi ak euh bokk ci dekk yi nga xam ne tey boo nee Sawax ne Ngayeen Sawax ne Medina wax da nga nga yeen sa wax kon ci sa wax ci la nekk. ba xam nga euh, frontière mom chance la ci way li tax moy da ngay nekk à cheval mën nga nekk Sénégal mu neex. mën nga nekk des fois Gambie sax gën a neex Sénégal waaye ñun loolu ci wàllu dëkkuwaay muy chief bi nekk ngéen chief bi nekk woon ak ñun ñi dañoo def benn genre consortium dajee waxtaan di fekkelante bu ñu amee fête indépendant ñun ñu dem ñoom bu ñu amee ñun bu ñu amee fête indépendant muy 4 avril ñoom ñu ñëw ànd ak ñun loolu tax na ba ànd nañ sax man ak chief ngéen bi dem ci police Sénégal police Gambie immigration présenté wu ñu xam ñu ndax ñaari réew bu ñu frontière te seeni kilifa xamante wuñ coow bu fa amee du neex rek la te bari na coow yu law dem ci réew jóge koo ci frontière kilifa yi ñoo ko mëntu saytu yemale ko foofu waaye bu ko fa yemale jàmm mën na am te ala nag dañ dugalante dañ laalante ndax fii da ngay daw ba dugg biir Gambie soo fi dëkkut doo xam sax dugg nga biir Gambie Gambie Gambien mën na ba dugg biir Sénégal su fi dëkkut du xam ne moom mi dugg na biir senegal ndax yoon bi ngay jaar doo fa gis benn indication bu la wan ni fii la Sénégal am wala fii la Gambie loolu tax na ba Euh, sunu frontière ak ñun Gambie euh, yokkute la indi ak jaxasoo ak dimbalante ndax dem na ba safara bu amee boo wooyee sapeur pompier Sénégal bu ñu yéexee ñëw boo wooyee bu Gambie ñoom dañuy ñëw intervenir loolu dafa am solo sunu diggante Gambie je crois que ni ko président Macky Sall defee ak Adama Barrow ñun ñu nekk ci frontière bi également noonu la ñu ko defee ba ñaari réew nekk benn. bon en fait 2014 laa doon maire commune bu Ngayeen Sabax su ma bëggoon retracer histoire bi dina métti parce que xaj na sama yaram ni mu war a jege jegewu ko. mais su ma doon xoolaat tey bi may nekk maire fi ma dama fekk ak fi ma jaar wax naa ko waxaat ko xaj na dina xala gudd débat bu gudd lay doon ndax dëkk bi nga nekk bi bi nga fii ñëw 2014 bi may ñëw bu amul benn dëkk bu am courant benn benn benn amul courant yoon amutoon dara yoon amuñoon pratiquement poste santé yi benn la woon benn poste ambulance yi benn oto bu ndaw moo fi nekkoon comme ambulance euh, ci wàllu booy xool école yi ka kasaalika amoon na waaye am na loo xam ne desoon na wàllu wér-gu-yaram gi donc lu bari daal xaj na ñi ma jiitu def nañ seen kéemtu lay kattan nag et je parce que fii ñi fi jaar war nañ di leen vénérer di leen ñaanaat di leen tatagal xam nga li tax mooy fii sori na sori boo xam ne jël développement indi ko fi dafay laaj yàlla dimbal la kon du ma ne ñoom defuñ dara ñoom def nañ seen kéemtu lay kattan waaye nag man bi may ñëw yii ma limal la yëpp dafa amoon sooxe yàlla def na bi ñu ñëwee ànd ak nit ñi parce que man kenn rek mënu ma dara conseil municipal bi laa àndal te ci conseil municipal bi du conseil municipal boo xam ne taxawaayu politique lañ fay taxaw am na conseil yoo xam ne doonuñu sax bokkuñ pàmbéjëm politiquement ak ñoom mais ñoo gën a xiir ci liggéey bi xiir nañ ci loolu bokk gaa am ñoo xam ne ñoo bokk benn langue mais aussi dañ ci kon fii amul sol mbubu parti bi wala parti bi bu liggéey jooju daal liggéey nga yeen la ñun ñëpp ñu àndi pour intérêt commune bi ñu bokk liggéey tey macha allah ci wàllu courant presque dëkk yëpp am nañ ñetti dëkk moo ci des nañ donc benn sëriñ bay ñu ngi koy yeggali noonu poté yi ñëw na tey dañ bëgg balaay gàmmo ga incha allah yàlla dimbali ñu su mën a yegg mu yegg bu yeggu tet li ci des du bari mu desama trois villages uniquement muy Fass Ngayen Palen Ngayen ak Càmba mechamba, Loyne mais Càmba ak Fass Loyne pratiquement Issa Ñaa moo ko war a liggéey bagage am mu ngi mu ngi ñëw pour ñu tàmbali ko dafay mel ne kon ñaar yooyu bu ñu ko bu ñu ko tàmbalee benn fay des ñu benn wala ñaar moo xam ne moo kër mbilim ñu bokk benn dëkk la ak Ngayen donc ci walu poste de santé it également je crois fim ni ñu ngi ci 8 poste de santé yo xam poste bo dem ambulance ang fa wala ñi amul ambulance bari wul té yoon dem na ba ci buntu hôpital bi am ben dëkk boy dem nga yeen fim ne fo xam do jaar ci yoon yaa ngi dégg donc bo xolé ci walu jeunesse pratiquement macha allah emploi des jeunes négligé wuñ ko fo lamb rek je crois lepp duñ ko wax waye def nañ ba tay xey xëy xale yu bari ñu ngi xey liggéey am sen salaire yor sen kër yi man na la ci limal rek ci walu ñi nga xamne ni tay ñu ngi tak seen i mën naa ko tuddé seen grat bari nañ lool ño xamne biñ fi ñëkke ñun jaar nañ ci ñom am nañ seen diplôme nak ñu fexe jàppalante ak ñom ba ñepp ma sha allah ñu ngi liggéey ci walu jigéen ñi peut toolu na ko yi maraîchage bi aussi so xewoon na fi mais tay li fi nekk ci tool suñu dimbal ak wa Caritas ak Proval da tay dekk bu amul tol bariwul am amna nak waye yakarna naa bari bariwul dëkk boo a des Caritas PUDC Proval ñoom ñëpp jàppalante ak ñun ba ñu mën fi réaliser donc ci la réalisation des fois si ko pour nga toog poser problème parce que ça a été une planification boo xam basé sur le programme de développement communal parce que automatiquement élaboré ce qu'on appelle le PDC le plan de développement communal Mais ma ko élaborer it ba at yi ma intégrer les activités yi nga xam ngi dans le développement local te bokkuñu woon ci plan développement local vous avez defee ma soo maintenant le plan annuel d'investissement, investissement mooy PAI bi soo génnee et plan d'action. action xool chaque année quelles sont les priorités à réaliser Et et et et et les ko en fonction du contexte parce que boo xoolee année année bi le xam ne le Covid 19 am contexte beaucoup d'années, ak année yi nga Covid Covid 19 donc loolu yëpp da koy planifier rek actualiser ko mu ànd donc cependant ku wax baax baax wax loo xam ne lu manque la ndax tey Ngayeen maa ngi koy wax léegi ci tànt bi ndox dafa xaw a manqué ci commune bi am na ay forage ñetti forage Ngayeen am na fële parce que euh, jama ci am na bu ñuy installé daaru mbàpp moo normalement liggéey war na tàmbali du yàgg dara mais teewul am na secteur yoo xam ne ba tey nit ñaa ngi sonn ci ndox ndox dafa nekk source vitale boo xam ne tey nit ñi pour ñu dund dund bu mucc ayib dañ ko war a am mais ci gàttal daal ndox daal mooy li nga xam ne tey ñaari forage yu mag parce que forage bi fi nekk 32 mètres cubes par heure avons nandal population Ngayeen il nous faut minimum 100 mètres cubes par heure C'est le forage c'est vrai que nous avons ja forage Nous dafa yàgg ñoom bu ñu def forage dañ def forage ndaw mais boobu daanuñ est xalaat ne population bi day population di Yok, jur di consommation bi day ce qui fait que aujourd'hui 32 mètres cubes par heure mënatul nandal commune bi il nous faut avoir minimum 100 mètres cubes par heure plus maintenant allié à d'autres forages je crois que son programme présentement bokk na ci trois villages yooyu bu tàkkee bu courant ba mooy ma rayante rapidement jéem fi instauré au minimum quatre forages wala trois forages ak benn muy quatre ma synchroniser forage comme ça forage bu ci amul ndox ñetti fonctionné ñëpp danañ naan le temps ñu réglé ko. en fait daanu ma nangu dugg ci débat politique. heureusement région Kaolack ñëpp xam nañ ma nag <laughs> national sax ñëpp xam nañ mais très rare ma dugg ci interview nga laaj ma ci politique ma tontu ci n'empêche nag fii ci département Nioro sur le plan politique. commune bi nga xam ne day ëpp pourcentage département bi man mii la Goumba Gaye c'est bi may fal 2019 soo boolee opposants yi ma opposé li ñu am nga nga comparé ko ak man li ma am man ëppale waat naa leen su fekkoon ne dañuy wax ne deuxième tour communes yi dañ koy def kon commune Ngaye nag Daaru Salaam ñoom duñ dem deuxième tour premier tour la ñuy jàll te ñoom ñaar rek la ci nag dinaa leen ci mën a tontu di wax ne président Macky Sall wax na bu leer ne. moom mandaam euh, mission am jeex na ci Sénégal le day jeex Sénégal le 2 avril wax jooju leer na amul sax commentaire moom il l'a dit il l'a redit te nit ko am baat la bu xasee ba ne jeex na moi je crois que jeex na te it nit ñi boo leen di liggéeyal soo demee ba ñoom ñu wan la na la fii lañ bëgg ñu yem pourquoi pas na fa yem man mii am na foo xam ne du ma fa yegg ak waa Ngayeen même buñ ko bëggee sax du ma fa yegg ñoom parce que ndombo tànk yàlla moo koy joxe bu ko jeexalee mu jeex Macky Sall bi muy dugg ci xolu ni ñi booba kenn foofu ko woon te Abdoulaye Wade doole ji mu yoroon ku la waxoon ne Macky Sall mën na ko gagné ci kanamam ak pourcentage ba mu gagné deuxième tour. en 2019 ñu falaat ko kon population bi desaluñ ko dara waaye moom it desalul population bi dara je crois que donc bu dialogue amee ñu ne ñu waxtaan waxtaan comme on son noo leen rek pour génnee solution la solution bu ñu ko waxee parce que y' a problème et là li ci gën a am solo mooy toujours éviter les problèmes on ne peut pas de vie sans problème dund mënoo ko dund sans problème mais je crois que nee dialogue pour ñu am solution la et que man gëm naa ne nit ñi war nañ xoolaat seen bët yi waa ji wax na ko léegi ci tànt bi ne buñ dañ daan wax fay nit ñi pour ñu wax waaye léegi dañu war a fay nit ñi pour ñu noppi ndax kii wax te xamul li muy wax kooku dafa jar sax fay ko fay ko mu noppi te wax nañ ko Sénégal gi daan daan bay gerte Sénégal gi daan bay dugub bokkul ak Sénégal gi am pétrole bokkul ak Sénégal gi am gaz gaz bi nekk ressource boo xam ne yaakaar nañ ne gannaaw Nigéria en Afrique Sénégal moo ëpp am gaz bi nga xam ne moo gën a rentable gën a économique loolu muy la muy un bonus pour la génération future ñu war ko préserver préserver pétrole bi pour bu ko saytaane yàq ba bu ëllëgee jeunesse man ci jëriñu tout tànk yi mën ci jëriñu mag ñi mën ci jëriñu ñëpp mën ci jëriñu. non amul dalul xel dalul xel dans la mesure où manifestation bu amee sa bopp nga xam xam xamoo lan moo ci rax xam nga manifestation yi dañ koy wax rek ay manifestation yi ki ci gën a yàqule yoonam yoonam newut ci politique. nit ki dem àll ba bay toolam sàmm nagam am depart sarse magasin am di jaay yoonam nekkul ci politique farod ak ma sàmm farod ak ma dem ba manifestation ñoom ñu dajji boutique am yóbbu àll mais kooku kan moo gën a perte kooku politique wul kooku deful dara donc manifestation yi moi je crois que daal loolu ci réewi tubaab bi lañ ko daan gis dem na ba léegi fees na suñu bët ñun waa Afrique donc nañ ko traduire en en en terme de positivité xam ne ñoom manifestant yi am na information bu ñuy wax la ñuy wax moi je crois que bu jaree ñu wax ko d'une manière passive ñu wax ko d'une manière passive su fekkee solution am na à travers ça mais daal nañ bàyyi xel ne ñu ñuy yàqal faluwuñ seen yoon newut ci politique sa seen alal ñoo ko ñaqal seen bopp am na ñoo xam ne ñu ngi ciy perte loo xam ne seen kër dem nañ ba lekkatuñ am na ñoo xam ne seen alal yàqu na ci am na ñoo seen oto yi lakk nañ ko ci te xañ na ñooñu banque sax lañ dem bi seen xaalis donc loolu daal man dama ne yàq bi daal critiqué naa ko nañ préserver sunu sunu sunu patrimoine dañu préserver keneen la mu moom suñu dëkkandoo suñu suñ jaamu yàlla bi nga xam ne ñoo bokk dëkk ëllëg ñooy ànd lam moom nañ ko préserver teel ko quant à autre nag lié à la politique moi je crois que man daal ay débat politique daal du ma ci sori du ma ci xuus su ma xasee ba gëm gëm naa la ma gëm dalal na ma nag lu ne Macky Sall maag ma ma ànd tey laa gën a ànd ak moom ba keroog mu fi joge man daal maa ngi ci ngayeen laa gëm du ma député du ma conseil du ma conseil économique social kon man ngayeen moo ma fal jox je quant à constitution non euh, on malgré que je suis le président du collectif des maires département de Nyoro. en même temps je suis le euh, secrétaire général de l'association des maires du Sénégal chargé des communes et de l'intercommunalité kon ay sur le plan départemental régional et national mais li ñor ci bi ci jiitu mooy ngayeen ma doxal ko ba ngayeen am résultat boo xam ne tey li tax waa ngayeen teg ma fi daal ma am ko bu jeexee ma xam ne mission bi jeex na et puis je ñu dimbalante comme ni ñu koy waxee ci ziar yi ñu dimbalante fexe ba xol yi ñu defar ko parce que Sénégal on a l'impression que xol yi yàqu boo xoolee barki dem journaliste boobu rek ni ñu ko def moi je crois que kii xëy ci teleem di liggéey te yàlla tax nga xam ne moom leeral askan rek moo ko tax a jóg je bu ñu amee def luñ kooku war nañ ko maanaam war nañ ko épargner quoi te am na acte yoo xam ne nekk doon acte sénégalais sénégalais xamutoon dret sénégalais xamutoon rey munoon na xuloo noon na weerante waaye sénégal xamutoon loolu bu ñu demee nag ba sénégal dret ñu bugg ko soppi comme loo xam ne mu doy waar la kon dama ci profité lancer appel que ne ñun de fii Ngayeen ñoo bokk suñ bàyyee bokk suñ maam yee bokk su manee suñ maam yi bokk ñoo bokkoon penc ñoo bokk jumaa ñoo bokk daay ñoo bokk lépp kon lu politique bi jax jax jax jax waaye nañ sedd ëllëg ba bu paasee mbokk yi mën a xoolante te lu fa waay wax waay su neexee ay mbokkam gërëm nañ la bu naqaree ay mbokkam sikk nañ la kon boo koy wax na nga ci seet ëllëg lu dëri li ngay wax ba bu ëllëgee buñ la ko tegalaatee parce que vaar yaa ngi fi c'est say seen i ñoo fi ñëwoon daaw di ba introgé li ma waxoon ñu ngi ko denc tey li may wax it déwén bu ñu fi yàlla béyee keneen bu ñu deewul dañ koy génnewaat kon lu waay wax dañ la koy laajaat ëllëg ce qui ñun ñu dëkk bokk diina bokk tool parce que ñun suñu tool yi lañ am suñu alxuraan bi suñu ñaq la ñuy dundee ñun politique bi la mooy bari bari njëriñ genn wàll genn wàll politique ñun lekkuñu ko naanuñ ko ndombo tànk li ñu bari bari bëri ñun liñ ci am bëriwut suñ doomi jàng lañu am di jaay sawaay bëri lewuñ ko kon li nga xam ne ñun dunduñ ci ñaquñ ci amuñ ci teraanga ngelawaay bu mu ñu tee am jàmm ñoom bu ñu xuloo tey werante dóorante ëllëg bu ñuy dajee France def seeni i réunion di naan ataaya yow doo ko yëg seen doom yi bu ñu leen yóbbu Canada ñu jàng yow doo ci bokk kon ñun lii comme ñun suñu ñàkk tool lañ yaakaar suñu ñàkku liggéey lañ yaakaar waaye waaye nañ kenn ku ne amal la nga gëm nga gëm ko ñu jàppalante ci rek waaye ñu bañ ci wax loo xam ne lu ñaaw la loolu rek la